asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah lundi 4 novembre 2019 ñu ñëw ci njigli kaay yi moo xam sunu làmb la la tribune record Leewtoo TV ba ci Leewtoo point fu ci nekk rek tey xëy nañ fekk fa ay xibaaru làmb bu fekkente ne yëglikaay bi nga xam ne moom sunu làmb lañ koy wax moo Lo la ñu xëy séqal waxtaan Modou Lo nag moom fi mu nekk nii daal daa mel ni moom andi na ay leeral ci mbir yi nga xam ne nii mooy coow ci dëkk bi muy digganteem ak Ama Baldé Modou na leer ba leer daal amul menn mbër moo xam ne nii day bàyyi naa ko ngir bëre ak moom Modou daal moom leeral na nañ nee na muy Ama ak kum ci mën a doon jàpp na ne itam combat moom boo bëggee dégg-dégg day yaakaar na ne léegi rek dina taxaw ñu fisale ko waaye daal moom fi mu nekk nii bàyyiwul kenn koo xam ni daal jàpp na ne làmb boole na ko ak moom moo xam Ama la moo xam Tafatine la moo xam keneen ku mu mën a doon la Modou daal xëy na tey ñu dalal ko ci xalima ak Abdoulaye Dembélé ci yëglekaay bi di suñu làmb mu wax la nga xam ne nii moom la bëgg a wax wala boog mu indi ay leeral ci lu baree baree bare bari ba tey bu buñ duñu sori foofa ndax nag fii nga xam ne nii dey mooy écrit ba mu nekk muy Rock Énergie moom daa mel ni nag dañ doon def li nga xam ne nii day moo di ab réunion wala assemblée générale waaye loo ci mën a dégg daal réunion ba moom wala boog seen waxtaan wañ doon def xam ne mooy ca parcelle daal teg nañu ay règlement yoo xam ne ni day ay règlement yu bees teq la yoo xam ne nag dañ ko fas yéenee teg te képp koo xam ne wàcc nga ko moom ay sanction mën naa dal sa kaw moo tax wan nañ leen ci aw photo moo xam président ba di Khadim Gadiaga ak membre yi écrit baak mbër yépp a nga taxaw Pape Mbaye nag ak Cheikh Sow moom jàpp nañ ne day ñoom fekke wuñu woon lu mel ni ki noona mu mel ni ki daal fi mu nekk nii day combat Ama Baldé nag ak Modou Lo Khadim Gadiaga nee na léegi moom validé ko maanaam daal fi mu nekk nii moom ci ñoom la des waaye seen kàddu ñoom ñépp kenn waxatul waxi bañ wala ngay jéem a indi lu bokkul ak bëre combat ba loolu mooy waxi Khadim Gadiaga ba tey bu ñu demee ci Leewtoo TV ba tey dañ fay fekk Khadim Gadiaga ak meeru Parcelles Moussa si ak waa Parcelles ñoom jàpp nañ ne Ama Baldé ñemewu leen waaye jamono jooju itam kii nga xam ne moo di Moussa si moom jël na terrain bu rëy jox leen ko ñoom Waarok énergie fas yéene leen koo defaral ñu fay entraîner mu mel ni ki daal fi mu nekk nii ñoom seeni mbir daa mel ni kon Waarok énergie mu ngay gën a tege ci aw yoon yëglikaay yi ñoo xëy ñëw dina ko wax ba tey combat booba dañuy dem ci record rek mu mel ni ki record itam ñëw na ci combat Ama ak ki nga xam ne moo di Modou ci bañ giñ ne Ama da koo bañ 80 millions yi ñu ko fay yëglikaay ba nag def ci ay laajte ci xalima ki nga xam ne moo di Abou bu dee Max Mbargane la moom nee na li leer ba leer daal ah li mu jàpp daal mooy ancien sportif bi moom waras na koo mën a jiital tamit ci combat bi ndax nag boo daanee nekk roi des arènes nee na yooyu yëpp waras na ko teg xool itam mbër mi bi mu mujjee bëre kase bi mu ko woon nee na loolu yëpp daal waras na koo indi daal di koy teg ba nga xam ne loolu war naa mën a tax nga xool ndax di nga jël combat bi wala déet Fallou njaay moom di promoteur la mu xam le daal nee na moom li leer ba leer day ama cent vingt millions waras na ko koo mën a jox wala sax nag cent ndax nag jàpp na ne day bu ñu fayee Modou cent cinquante millions waras na faa mën a fay Ama Baldé lu jege loolu parce que nag Ama de mbër la moo xam ne da yëngu di yëngal waaye nee na boo xoolee li ñu wax bu dee noonu la demee quatre-vingts millions pour Ama cent cinquante pour Moodu Fallou Ndiaye daa jàpp ne boobu différence moom dafa ëpp ba jàpp na ne kon Ama Baldé mérito na sax lu ëpp cent millions moom Fallou Ndiaye moo wax lu mel ni ki noonu nga njaañ moom nee na li leer ba leer day ah lii ci am tam ci quatre-vingts millions yi mooy Ama ndax fi mu jógee ak kañ la mu jëbëre nee na est-ce que quatre-vingts millions yi dana ko doy Modou Lo la moom li leer ba leer daal bi mu mujjee bëree yàggul te boo xoolee kon financièrement moom mooy gën a taxaw mu mel ni ki daal fi mu nekk nii combat boobu itam coow laa ngi ci ne gàdd mu mel ni ki daal Rock Énergie boob wala seen mbër mu moom bëri na coow seenam écrit nag moom defaroon nañu ba toog seen ab toogaay fas yéenee jublu ci seen ab liggéey ña nga xam ne nag moom seen ab toogaay la ñu bëggoon a defar mu far yàqu mooy écrit face Tapha Gueye moo woowoon mbër ya ngir ñu war a toog ca Saakura Badiane waxtaan ba yëglikaay bi nag nee na leer ba leer woote Tapha Gueye daa mel ni ci noppi ku tëx la tab bi fiasco daal la mujje ndax kenn wayu si koo kenn ñëwul wayu si ko mu mel ni ki yëglekaay bi na bu fekkee am na ñu ko wayu si moom jàpp na ne moom ñeenti mbër lañu muy ki nga xam ne nii moo di parisien Baara Ndiaye caatu montagne wala sax ñetti mbër ñoo ko wayu si waaye Gris 2 Gris Bordeaux Lagros Papa Sow ak ki nga xam ne mooy Tafa Signor Pape Ndoy Forza Forza 2 Pape bu xees ba ci boog ak benteñi ñii moom kenn seenu leen fa ca woote Tafa Gueye ba ngir fas ko yéene faa def ngir fas yéene continuer liggéey bi mu mel ni kii nag loola moom tax na nag ñu nar a woote beneen woote yëglikaay bi di sunu làmb xëy tamit ñëw dinu wax lu mel ni kii noonu waaye leneen loo xam ne tamit gis nañ ko fii nga xam ne nii day moom moo di ci yëglikaay bi nga xam ne moo di sunu làmb mooy mbay cuun mayor tafaatin mbay nag ne na fi mu nekk nii moom tafaatin mënu fee nekk di xaar jëmale bu kenn xamul lig ni ko laay daal ne leen lépp wala mu firi leen moo gën wax ji demal dikkal ji moom mbay cuun moo xëy di wax lu mel ni kii noonu bu nu demee la tribune nag la tribune moom kanu fay fekk mooy Cheikh Ahmed Tidiane Sarr moom nag mooy directeur des infrastructures sportives fii ci réew mi moom nag la mu xëy xamle daal nee na stade Léopold Sédar Senghor moom buñ ko defaree ba mu mel ni mu war a mel méngoog jamono wax yi bëre bu ko fa kenn waxati xanaa kay kon gars yi dañuy dem yem ci seen arène national waaye jàpp na ne moom bu paree liggéey ba bëre moom deetee su ko fa def moom moo mu xëy ci laa tribune du wax lu mel ni kii noonu mu mel ni kitam dañuy demee fa nga xam ne mooy ca Leewtoo point net ñu laajte nag ki nga xam ne nii moo di Franc moom kan mooy jël jël place am ci meilleur lutteur bi ren mu mel ni kii nag fi mu nekk nii moom suba la ñuy fas yéenee tànn kan moo koy wuutu moo xam franc la wala ko ko jëloon daaw sax di ëmb seen te Leewtoo top net waaye Jax tamit 3 millions daal teg na ko ci 27 novembre fa nga xam ne mooy ca stadium Iba ba tey ci Leewtoo point waaye bu demee fa nga xam ne nag moom moo di ca Leewtoo TV Serigne Ndiaye numéro 2 moom ñaari génn la def am ci ñaari ndam première journée ba nga xam ne nii mooy li simple ci arène nationale bu njëkk mu am fa moo ko gagné moom moo di ki nga xam ne mooy général Malick ñu ne déet ne waaye démb 3 millions wala 2 millions 500 ya jag si tegoon fa nga xam ne mooy ca terrain gaal gi Serigne Ndiaye numéro ñëwaat fa daan ki nga xam ne nii moo di pakala ca final ba lu jiiti loola Sélémélé la njëkk a daan ñu ne déet ne waaye mu teg ca óbbali mu mel ni ki kon daal ca Leewtoo TV fa la ñuy fekk lu mel ni ki moon mu mel ni Serigne Ndiaye moom fi mu nekk nii mu ngay dox ca xottam di sa lëx di dem waaye ñi nga xam ne seeni mbir moom doxut mooy waa école de lan saane la ñu quatre défaites yëglikaay bi ñëw na ci ñoom li leer ba leer nag mooy fi mu nekk nii daal làmb ji moom jax na waaye nag gàmmu giit ñëw na samedi la nuy ñaan yàlla dugg ceeg bisimillahi rahmaani rahim génn ceeg alhamdulilahi rabbil alamin moo xam fu koy gàmmu ci réew mi Tiwaawoon Njaasaan Medina Baay ak fu mu mën a doon rek ba ca njaareem ñu ngi ñaanal ñépp jàmm gàmmook jàmm waaye di ndokkeel suñu mbokk chrétiens yi ci feet gii nu génne bërki démb muy feetu Toussaint bi du mën a ñàkk Sénégal benn bopp la mënee su ko xar ñaar yàgg maar wala Fall Moussa. mbokk waa Leewtoo TV ñu ngi leen di leen gërëm di leen sant ngeen àndaloon si euh, revue de l'arène ñu ànd ak yéen maa ngi lay nuyu. fay naa la Ndeye ah, di la ziar di la nuyu di ñaanal ñëpp jàmm di nuyu ñëpp di wax ne que rek namoon nañu gars yi waaye yam itam ñoom namoon nañ ñu mais ñun ñu leen gën a daal. baakalool am na sol ñëw na si jàngatu arène bi si sunu lamb record tribune Leewtoo TV ak Leewtoo point na nu tàmbale nag ak sunu lamb sunu lamb te dafa xëy am euh, waxtaan bu yaatu ak ki nga xam ne mooy loo roi des arènes mi bo euh, muy Modou Lo daal nee na moom instant bi pare na mi ngi xaar képp ku ko proposé muy Modou Lo muy muy muy wala beneen mbër moom pare na te amul benn calcul bi muy def nee nag Ama Baldé na xool cachet bu ko arrangé rek mu ñëw sëgg ba rek moom. waaw loolu da la wax moom Modou loo tey suñu làmb mu mel ni ki nag ah kon moom bu dee moom ak moom la affaire yi daa mel ni fi mu nekk nii luy luy luy luy luy lëndam amu ci daal yaa ngi dégg li leer ba leer daal wax na kani moom ku mu mën a doon moo xam Ama moo xam keneen ku ñu ko mën a proposé pare na ngir bëre ak moom mais lu si mën a dégg li mu wax tamit leer na Ama na xool kese bu ko arrangé effectivement mbër mu ne yaay xool li la arrangé moom Modou fi mu nekk nii moom mooy roi des arènes daaw bëri na ñaari waaw li gars yi naan waaw kinaara gu màggat gu nu la jege day sëlëx di dem mu du actuellement noonu lay doxe ah waaw moom fu ko neex lay awale parce que no fi mu nekk nii mu ngi ruwaam waaw mooy ci gël gu yam nu ko neex doxale c'est le roi des arènes actuellement moom ku ñëw rek bu ko neexee mu ku jubal xam naa ne daal bu ñëwee dina bëre kon nag fi mu nekk nii ah comme moo ko amaa mooy coow li yàlla na yàlla def réussite am ci ba combat bi sotti bi ñu tëggu ko keneen ki nga xam te ne wax na tamit sunu la muy président wu Rock Énergie dafa wooteen benn ndaje dimanche fee parce Parcelles Assainies tegal nag ay charte ay réglement ne mbër yëpp nañoo war a respecter réglement bi kooku mooy Xarim Gadiaga Xarim Gadiaga nee na mbër bu am plus de trois cent mille francs da jël dix pour cent bàyyi si biir euh, écurie bi pour encadre pour staff technique bi Babacar mooy tamit lu ay kii lu am solo waaw Xarim ñu koy nuyu di ko ziar ndax bërki démb dem nañ parcelle avant ñuy def loolu fekk ko mook Moussa si ak encadrement écurie bi ñu jox leen benn terrain boo xam ne fa la ñu war di entraîner ci biir parcelle Moussa Sy def ko kon moom Khadim tamit dafa mel ni faluñu ko comme président boo xam ne dafa dañ ko fal nii rek mais am na ambition pour teg équipe bi si yoon ngir liggéey ko ñu def dem seen ensemble teg ay sart loolu lépp bokk ci sart yoo xam ne nii lu ama am solo la kon tamit yaakaar naa nit ki moom buñ la joxee dara bu yokk boo ci yokkee xam nga soo ci yokkulee xam nga parce que dañ ne ku wét xam sa bopp. yaa ngi dégg kon xaadim ñu koy ñaanal réussite bu maanaam wulte boobu ko waaru NSU ak waa parcelle ba dénk ko écrit bi ak loolu nga xam ne ñoom lañ fa teg comme ay règlement te ñu ne lu war a jëriñ yàlla na nekk li nga xam ne nit nañ ci am ndam ak réussite leneen li ñuy wax tamit moom lépp looy jiite tamit di teg sa ay réglement ak règlement yoo mën a tegit waxtaan ci ak ñu ngi ko seqal rek parce que règlement daa nekk loo xam ne comme dañ ne bu ko xasee teg déete su ko mën a xët yaa ngi dégg wala dina am diir bi yaakaar naa nag bu ngeen toogee ba waxtaan ci ba déggoo ci xool ne lii bu ñu ko defee njariñ lay doon te lor du ca am defe naa su keroog bu ñu ci dégg ba teg ko nag ku ne war nga mbuusa xar règlement yi pour di def leneen lu bokkul ak loola mais a doon rek na waxtaan am parce que ku nekk rek am na lu nekk ci boppam te koo déglu ñàkkut boo déggee lam lay wax mën nga caa jëlee njariñ Babacar sunu làmb tamit ñu xamal ne kii nga xam ne mooy Moustapha Gueye woote woon na fee si école de lutte bu nekk. ak euh, Sakura Badiane. ak école wote woon na foofu def fa benn réunion ak euh, mbër yu écurie bi mais kenn ñëwul ñetti mbër daal soo seconté ñeentul. waaw ñetti mbër ñu Tafa Gueye moo woote woon pour école de lutte Sakura wala boog école bi nga xam ne mooy Sakura Badiane muy écurie Fass fu ñu entraîné a Badiane mu ngi nekk Colobane. mais kenn wuñu siwul tafaagee moom la ko yëglikaay bi waxee maanaam du yu mag yi te du yu ndaw yi boo xoolee ñetti mbër lañ wax ñoo fa teew mooy Baara Ndiaye parisien ak Caatu Montagne loolu nag li muy wane mooy kani rek écurie euh, Fass dama yaakaar ne lañ daan def la ñu bàyyi te ndey kumba ku wat jub bañ la xamee woon ah mën nga mi jafe-jafe parce que ci li ñu xamoon wala ñu daan ko dégg ci Fass mooy dañu bokk nday bokk baay bokk benn intérêt commun muy écurie Fass di ci liggéey écurie bi di jëm kanam mbër yi di bëri loolu nag daa bu ñu demee ba ku ne a ber sa saawas bopp yaa ngi dégg ah wéetaay de waaw mbooloo daal mooy doole loolu nag kon ñoom li ñu war li leen war mooy ñu xoolaat seen bopp xoolaat seen ay taxawaay parce que dafa am loo xam ne même kilifa yi dañu am part de parce que des kilifa yi tamit dañuy jiite benn affaire rek ne man maay kilifa gi lu ma nee laay def nangam te day yàq. loolu day yàq lu yàq loolu moo ko yàq kilifa nga d'accord dañ la koy nangul waaye ci sa kaw kilifteef googu nag del déglu ñi nga ñi nga jiite parce tamit ñàkkul ñu nekk ay boroomi xel wala sax ñu xel mais xëy na yàlla moo la jox pouvoir nga jiite leen yaa kon jiite nag di xel dafay am solo ñoom ñuy jiite tamit ñu nangoo déglu ki leen jiite mooy li ma waxoon sànq si rek waxtaan fu mu amul lu ne mën na fa am yaa ngi dégg parce que yaakaar naa dafa Gueye ak ni mu toll sacrifice ak la mu fa def su wootee kenn wuy su ko fa rek dañ naan sëb la lu ko bind nga ca biir kon nañu xool lu bon sëb bi ba ne ca biir sëb tax ay jafe-jafe ci am ci écrit bi. Euh, Babacar loolu am na solo su ñu jógee ne sunu dañuy dem euh, fi nga xam ne mooy record record na dafa taxaw def benn seetlu laaj ne est-ce que tey jii Ama Baldé war na mën a bañ 80 millions loolu nag euh, ni ñu koy jàngat si kii journal bi nga xam ne mooy record kii di Max Margan Fallou Ndiaye ak kii di Ngagne Ndiaye wax nañu seen xalaat si loolu. waaw Père Max moom li mu wax mooy que ni moom ancien sportif bi war na ko war nañ ko ci jiital ci buy jël combat bi moom parce que tey bëreeg roi des arènes mën nga koo daan nekk roi des arènes xool itam ne na moom ci kase gi nga xam ne moom la mbër mi mujjee bëri yooyu yëpp war nga ko indi teg waaw loolu itam xalaat la mu pare max la te lu mu wax it maanaam mbër mi di nga xool ñaata lañ ko mujj a fay di nga xool combat bi muy bëri ban enjeu sportif moo ko si ba nga war a mën a jël combat wala nga bañ ko jël bu dee Fallou Ndiaye la moom moom waxam tamit dafa leer dina moom ama jar na cent vingt millions wala sax wala lu ko ëpp ba cent trente millions parce que jàpp na ne mbër la moo xam ne li muy drainer bëri na te mbër mu mën làmb la. te nee kon bu ñu fay muudu cent cinquante millions comme ni ñu ko déggee bëgg a fay Ama quatre-vingts millions moom daa jàpp ne loolu te jaaduwul parce que nee différence bi bëri na trop te Ama nekkul n'importe quel mbër bu dee Ngagne Diagne tamit nee na ce que financièrement arrangé na ko quatre-vingts millions yi parce que géej na bëre yaa ngi dégg te muudu bëri na ak Balla Gaye jóge ci bëre ak Eumeu Sène kon ci côté compétition ak ci côté finance actuellement dañ naan muudu moo gën la gisee loolu tamit yaakaar naa ñoom ñoo ñëpp ku ci ne boo xalaatam rek. ku ci ne li mu wax war nga ci mën a bàyyi xel mais encore une fois rek li ñuy waxaat mooy que ne si combat boobu moom fi mu nekk nii mooy coow ci dëkk bi daal muy Ama ak Modou ko topp muy lig yàlla dina ko dimbali mu mën a déggoo kaw Ama pour mën a tëgg combat bi. suñ jógee nag fi nga xam ne mooy record nañu dem si tribune tribune mu ngi xamal Cheikh Sarr Cheikh Sarr nekk ministère des sports nekk yor infrastructure dafa defoon point de presse démb nee na nag ñu ngi daañu defar fii li nga xam ne mooy stade Léopold Sédar su ko defaree bu pare làmb jëpp arène nationale la jëm. ah waaw loolu day kilifaa ko wax c'est le vecteur des infrastructures Cheikh Sarr Cheikh Ahmed Tidiane Sarr waaw euh, Léopold Senghor moom pour football bi la yaakaar naa su ma jumul ba ñuy organiser coupe d'Afrique 92 lañ ko tabaxoon yaa ngi dégg euh, tey mu dem baa ami jafe-jafe ñu daan fa bëree di fa di fa football tey nag bu ñu xëyee war ko defaraat pour mu méngoo ak jamono ah moom mu ne bu amee buñ ko liggéey ba pare moom làmb dootu fa am. lamb ji arène nationale la jëm ah dama naan c'est très la parce tamit ku ñu ku ne bu ñu la tabaxalee sa arène kii ñu tabaxal ko stade football maanaam na ku ne ku ne am nga droit yam ci li nga moom rek waaw waaye itam lépp rek nañ ko teg ci cadre rek ñun ñëpp ñu ñi ko seex moo xam euh, ministère balaa ñi nekk ci biir mbir mi yëpp ci sport bi ñu waxtaan ci ba déggoo waaye daal comme waa làmb am nañ seen arène moom pour man du jar xëccoo déedéet du ko jar. Babacar am na solo suñu jógee nag si bëri bi dañuy dem si lutte simple bi nag euh, euh, démb amoon na làmb barki démb amoon na làmb euh, gaal gi ki nga xam ne mooy Jax moo fa nekkoon tegoon na fa mise 2 millions ki nga xam ne mooy Serigne Ndiaye moo ko jël si kaw Pakala si côté lourd yi léger yi nag kii moo fa nekk kii moo gagné ngóor ñaax moo gagné léger yi Babacar. waaw waaw noonu la fa demoon un million deux millions cinq cent la woon Jackson ko tegoon deux millions yi ñu tegoon ko lourd Serigne Ndiaye jël ko final bi moog Pakala Serigne Ndiaye mu ngi ko mu ngi yónnee boppam ndax deux sor ñaari sorties yu mu def yëpp dimanche passé moom na fi mu moo ko jël ci kaw mbaytin yaa ngi dégg démb tamit adré moom amoon na nag bi jamono boobu nga xam ne ñu ngi tëgg fële Adrien ñu ngay tëgg. moo gagné Ibou Senghor. waaw moo gagné Ibou Senghor ci foofu ca aar ca Adrien Senghor kon li seen fi mu yëngu na bu baax a baax a baax mu ñu ñaan daal promoteur yi ciy tëgg yëpp ku ci ne yàlla nga am looy teg mais Jax tamit vraiment dañ koy defal mention spéciale ndax gis nañ ne ci weekend bi rek maanaam ci ci ci ñaari weekend yi ki ne ci 4 millions 500 tegal waaw Bakalo am na solo si kàddu yoon leen tàggoo di la jox di daje suba incha allah mais balaa boobu muy nuyu sama yaay may so nuyu sama doom Mouhamed Diouf nuyu Dadi Gueye nuyu Astane Chéri Khadija Diallo depuis unité 26 di nuyu aussi Aïcha Faye madame Nia ak ki nga xam ne mooy Aïda Diouf Babacar. waaw di nuyu ñëpp di ziar ñëpp ñaanal ñëpp jàmm di balu ñëpp àq rek di nuyuwaat tamit internet yu international yi ñoom ne seetaan ñoom Baara Kañ ñu ngi Brésil xam nga ñoom mu dikki bu Balla Gaye képp ku a doon. tuuti yaay Sarr Khady Rose Ndiaye du ko fàtte fépp fu waay mën a nekk rek ñoom dabaax ñu ngi Norvège fu ne nit a nga fa di ñu seetaan ñu nekk ba Russie xam nga fu ne nit a nga fa mais kon ñoom ñëpp daal amuñu seen fa yàlla leen yàlla kàttanal may leen doole yaa ngi dégg ci kàttanu yàlla barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam di ballu ñëpp àq rek di wax ne gàmm gi ñu jëm yàlla nañu ci dugg bismillah rahmaan rahim génn ci alhamdulillahi rabbil alamin di ñaanal xalifa général yëpp ñu yàgg fi te wér Sénégal yàlla na fi jàmm sax te yàgg